mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaaru tàkkusaan si ñu jàll ci li ci gën a fës doon na ci ab suicide maanaam xaru boo xam ne kenn ci ñu ñu tegalandoon loxo te àndoon ak booy Djiné ci commissariat central lu ni mel am big ci guddi mu tudd du Faye moom nag dafa dagg bu dafa takk bu boppam ba mujjee ñàkk bakkanam la waral jëf bu ni mel ba tey ji kenn jukkeegu ci naan ci xuus ci xibaar yi ñu wax ci li nga xam ne moo soxal ab marche boo xam ne liggéeykatu Senelec ca diwaanu Kaolack ñoo ko doon amal mu di ab marche boo xam ne kenn autorisé wu ko ba tax ñu teg ci loxo eh, ñaar ak ñaar ñoom foofu foofee ca Kaolack nañ ci ànd ak mamadu kamara dinañu wax it ci li nga xam ne moo soxal mbas mii di Covid 19 ñu nemmeeku ci ab yokkute ci li mu ñi nga xam ne feebar bi dalee na dal ndax ci diiru benn fan am na juróom-ñaar fukki cas ak benn yu bees lu toll ci ñeent fukk ak juróom doon ay ka communautaire te lu ci ëpp ñu nemmeeku ko fii ci Ndakaaru lu ñeel li nga xam ne moo duy inondation yi maanaam euh, mbënd mi dinañ ci euh, wax ak comité national de gestion des inondations bi xam ne ci jamono ji euh, mu ngi lëlu ca Diamniadio ak lépp li nga xam ne dafa soxal ay coppite yu ñu war a amal ci xeex gi ñuy xeex mbënd mi ci ren gi ak ci jamono ji nga xam ne nawet gi euh, mu ngi yoot dinañu wax it ci wàllu élection locale euh, ponk la ci wax sa xalaat am na ay proposition yoo xam ne opposition bi euh, dañ ko fësaloon dañ ci jukki ay xibaar yeneen yoo xam ne dina soxal tey ji li nga xam ne mooy xibaaru ci tàkkusaan yi ñu ànd ceek Pape Lay Dieye Marie-Rosalie Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu doore kaak xibaar bi nga xam ne dafa aju ci kenn ki nga xam ne dafa àndoon ak Boy Djiné bañ koy teg loxo moom nag nee ñu dafa faat boppam maanaam suicide Abdou fay la tudd ñu nekkoon ca commissariat central lu ni mel amee big ci guddi moom nag dañu jàppoon ne ab complice la ci euh, ki nga xam ne moo di bàyyi moo Modou Fall te ñu teg ko loxo ca Missira ca diwaanu Tambacounda la waral nag mu faat boppam ba ci jamono ji kenn bu fësalu ci xibaar bu leer dañ ci ànd ak Ndeye Mariam Ndiaye leeral mbirum Boy Djiné saa su ne dina am lu bees loo xam ne dañ ko ciy nemmeeku ndaxte tey jii daal dina ñuy fësal ci biir ëttu yëglekaay yi ne nag Boy Djiné ginnaaw enquête bi nga xam ne waa la ñu gëm moom ko jàppale ngir mu daal di rëcc te ñooñu nag ci biir ba sax am na nag ci lu tolloog ñetti garde yoo xam ne daal dinañu leen teg loxo te tey jii sax la ñu waroon mën a déglu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo àndoon ak Boy Djiné daal di a rëcc dem ba fa nga xam ne nag moom mooy ca Mali te doon ko jaarale ca uh, Tambacounda ndaxte foofu lañu ñu leen uh, jàpp ñett ñooñu nag tey jii la ñu waroon a jàkkaarloo ak procureur de la république wante Dakar Actu de moom ñuy xamal ne kenn ci ñoom di Abdou Faye moom mi nga xam ne nag jàppandoo woon nañ ko ak ki nga xam ne de moom mooy uh, Baye du faal alias booy Djiné moom démba dafa daal di xaru ci biir commissariat centrale bu Dakar li ni mel naka la mu ne nekk ndax moom ba muy def li amul woon ko mu nekk woon ci biir néegam naka la daal di xaroo loolu yëpp di ay laajte yoo xam ne enquête bi ñu bi ci wàll gi ni dina ci indi ay leeral mu nekkoon Ndeye Mariam Ndiaye lu ni mel ponk la ci wax sa xalaat soxal xaru bi nga xam ne kenn ci ay àndandoo bu booy Djiné amal na ko ci commissariat central démb ci guddi nee ñu dafa takk bu boppam dal di faatu ñu wax ci marche bi nga xam ne amee na ca diwaanu Kaolack liggéeykatu Senelec yi amaloon ko fa te amuñu ci autorisation ba tax nag way takk der yi daal di ko tasaare ba ñu teg loxo ci ñoom lu ëpp ñaar fukk ñu ànd ceeg mamadu Camara oh, oh, oh, bi tàngoor na jër fii ci Kaolack ndax nag bi fukki waxtu jotee la bokk ci amical liggéeykatu électricité daal di wàcc ci mbedd bi doon dox doxu ñaxtu kilifa bu Y'en a marre àdduna ci laata moom ñu koy teg loxo. et ah, je veux pas vraiment parler et après regretter quoi. mais de toute façon nous sommes dans un pays très injuste. nous qui fait dans un pays de honte. ce pays là c'est un pays de honte. vous l'avez constaté. des jeunes sénégalais. am droit réclamer seen droit. taxaw di ko réclamer. police fekk leen di leen chargé. di leen dóor ay lacrymo. des jeunes très pacifiques et civilisés. dans la diplomatie ñëw taxaw di réclamer seen droit. police di charger ay lacrymogènes suñu kaw mais ils vont nous le payer très cher. ils m'ont brutalisé mais ça je ne vais pas laisser passer. muy doxu ñaxtu boo xam ne bii kii di préfet bu Kaolack nangu ko woon moo tax nag ñu alkaati yi daal di leen dóor ay lacrymogènes ci booru rond point orange ci Médina Baye. Oh, oh, Kaolack Mamadou Camara Sud FM. ñu koy jaajëfal Mamadou Camara ñu wax ci mbas mi di Covid 19 ndax am na yokkute ci limu ñi nga xam ne euh, moom la feebar bi daal ci diiru euh, benn fan bi nga xam ne moom la ñu génn toll nañu ci juróom-ñaar fukk ak benn kaa euh, ñeent fukk ak juróom doon ci ay cas communautaire fanweer ak juróom-ñeent ñu nemmeeku ko fii ci Ndakaaru ñaar ca Kanel benn ca Kaolack maatam aussi ak Ziguinchor amul nag kenn ku ci ñàkk bakkanam waaye am na ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukki patients yoo xam ne ñoom tane nañu juróom am na ñoo xam ne cas grave lañu campagne de vaccination bi nga xam ne dooroon nañu ko mu ngi wëy ba ci euh, jamono ji dañu wax ci li nga xam ne moo di nawet gi nawetu atum ren gi comité national de gestion des inondations mu ngi nara lëlu suba euh, ajuma fukki fan ak benn ci weeru juin ca jam ñaajo ka ko nara jiite moo di ministre de tutelle ñu nar fa waxtaane plan de lutte maanaam euh, lépp loo xam ne dañ koy nësër ci xeex bi ñu bëgg amal ci li nga xam ne moo di mbas mi dañ ci ànd ak Amadou Kanar Diop ak Babacar Samb waaw li njëkk li ñu war a waroon def ñu jotagul taw bi li njëkk li war a def mooy canon yu ndox yi fi ndox yi jaar te ñu defaroon ko nañ dem curé ko salte ba fa nekk yëpp ñu dindi ko boobu ndox bu ñëwee du taxaw yoon yi ndox yi aussi yi nga xam ne ñu dee ci bi dañ leen di profiler maanaam defaraat leen boobu ndox bi bu wàccee rek dana daw wuti réceptacle yi wala bassin yi ñu defaroon bassin yi aussi ñu defaraat ko salte ba fa nekk yëpp ñu waat ko ba mu mën a jël ndox bu bari mais yooyu yëpp nag lañ koy mën a defee il faut que population yi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu boole leen ci loolu la ñuy wax la première réponse dans une catastrophe elle est communautaire maanaam ñu njëkk a wuyu ci euh, jëya mooy communauté ba fa dëkk mais nag loola communauté ba dañ leen di préparer wax leen li war a ñëw bu ñëwee nan la war a mel bu waree mel nan ngeen ci war a jàppee parce que lan lay impact loolu dañ leen ko ci boole wax leen ko ñu waajal leen defaral leen dimbali leen aussi ay jumtukaay yu njëkk yoo xam ne ni ñoom bu ñëwee mën nañ caa def dara balaa état bi préparé wu pour ñëw parce que état bi ñëwam du gaaw man mënta ñëw ci waxtu bu njëkk bi te waxtu bu njëkk bi population yi la fay fekk nan la ñuy doxalee balaa état bi ñëw loolu war na leen cee waajal pour loolu mën a nekk mu nekkoon amadu Kanar Diop nekk expert en réduction des risques et gestion des catastrophes poñ bi euh, dina bokk ci wax sa xalaat soxal mbënd mi di inondation yi nga xam ne ñu ngi koy séentu euh, kenn ñaanu ko waaye ak nawet gi di ñëw lépp li nga xam ne war nañ ko ci def ngir moytandu ko euh, ñu wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci weeru janvier bu atum 2022 opposition bi fësaloon na ay proposition bëgguñu jëfe ko ci li nga xam ne nag moom moo soxal révision exceptionnelle des listes électorales opposition bi dafa xamle ne faw ñu vidé maanaam faw ñu jàll ci poñ yi nga xam ne moom la ñuy càmbar ba ci jamono ji te déggoo amagu ci Adjuma Sow bokk na ci plénipotentiaire bu opposition bi ñu teewlu ko ak El Hadj Malick Ndiaye. joxe nañ ko comme ay suggestion te ki nga xam ne moo jiite commission politique bi di professeur Babacar Kanté laajoon bi ko euh, mooy ñu proposer ay gàtt yoo xam ne euh, ci la ñu war a taxawal yenn ci ay opération yoo xam ne war nañ ko def laata ñuy dem. ci élection bi nga xam ne ci lañ jëm muy élection locale bii di ñëw euh, euh, suggestion yi def nag euh, dañ cee sóoraale ñaar bu njëkk bi mooy ñu fexe ba lépp loo xam ne waxtaan la ci biir dialogue politique bi ñu fexe jeexal waxtaan boobu ba pare soog a song yenn opération électorale yi mais beneen bi aussi dañu dem ci élection boo xam ne élection la boo xam ne taxawaayu ndaw ñi def ci am solo te li ñu nemmeeku mooy ndaw yooyu lim bi nga xam ne Euh, doon nañ ko ci biir fichier électoral bi lim bu néew la moo tax ñu ne euh, li nga xam ne mooy révision des listes électorales te mu nekk euh, moment bi nga xam ne ci la ndaw yi mën a dem bindu ji nañu fexe ba révision boobu ñu bañ koo organiser ci biir année scolaire bi suggéré à ce que révision boobu noonu ñu yóbbu ko mu nekk entre mois d'août ak mois ak mois d'octobre li tax ñu def ko nag mooy dañu jàpp ne Euh, processus électoral bi bu ñu bañee ay xiiroo wala ay ŋaayoo di ci tukkee wala ay ay contestation ak mooy war nañoo fexe ba lépp ñu ci war a def euh, ñu waxtaane ko ci ñun ak nguur gi loolu moo taxoon bañ ñu laajee ñu yónnee euh, proposition yooyu nga xam ne def nañ ko fii léegi mu def diir Euh, yónnee nañ ko ki nga xam ne moom moo jiite dialogue politique bi. ndax ñu ngi ci délai bi ba tey ci jëm nag ci révision liste électorale yi. waaw waaw ñoo ngi ci délai bi ñoo ngi ci délai bi parce que xam bi yoon. Euh, li nga xam ne moom la ñuy def révision exceptionnelle la. révision exceptionnelle nag li ci code électoral wax dafa ne rek à chaque fois ñu dëgma lay élection war nañu def li ñuy wooy révision exceptionnelle pour permettre ñi nga xam ne. Euh, am nañu âge pour voter ñu mën a bindu wala ñi nga xam ne dañoo bëgg a def ay modification seen adresse électorale ak yu demee noonu ñu mën koo def ci lu soxal ci lu ci wàllum suuf ak décret bi nga xam ne dafa bëgg ñu daal di déclassifier benn pàcc ci littoral ba ca Géejawaay Alliance Sauver lu Sénégal mu ngi koy rafetlu waaye nag di dankaafu ñi nga xam ne dañu leen jàppee ni ay sàcckatu suuf ñu ciy dankaafu ki nga xam ne maire mooy maire bu Aliou Sall Ngaraf Mbaye euh, fësal ci ay kàddu ñu teewlu ko ci micro Babacar Samb. parce que lii mbir bu dégg Géejawaay dafa tool dafa commencé woon di xat di équipé wu impérativement nan la yokkee dëkkuwaay bi loolee nag mënuñu ko woon def parce que sama filaawu yi ñoo fee wala boog li ñu wax filaawu ñu fi nekkoon li ñu mën a jàpp li ñu mën a war a li war a mooy ni géejawaay mille neuf cent bi fii ñëw daaf mille neuf cent soixante ak Guédiawaye tey bokkul dafa am loo xam ne équipement yoo xam dafa war a am ci biir moderne am également ay projets pour le développement ay projets structurants mais nag aujourd'hui que lii am na dinañu permettre ñu mën yooyu mais également tamit yokk assiette foncière bi permettre ay doomu Guédiawaye yoo nañoo bëgg di Guédiawaye dëkk seen i kër bàyyi ndax ñàkk suuf ñu mën a am suuf si ñëpp ñoom seen njaboot la mère des batailles la ñu war a te la mère des batailles diggante géej gi comme ni ko décret bi waxee ak ak ak beneen bi ñu saxal fa ay plat yi commencé am Dakar waaye na ko ñëpp a sàmm ba mu mën a nekk ay plateau lu ci mën dugg si plateau yi am na rôle bu ñuy joué beneen bi nag mooy fexe ba géejaay bañ a nekk ce qu'on appelle le dindon de la femme maanaam ñu signé crédit bi waaye nag signé ko pour ñeneen maanaam lii ñu di jox waa géejawaay ñeneen ñu jox ko géejaay ñoo koy jariñoo te commencé na am ñooñu nag dañu tudd ñun les monsieur du soir ñu aay lool ci ay fexe ngir foqati alal taw ci na suuf est-ce que da ngeen di ragal ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo di bokk moomee la ñu def ci naka su dul noonu bokk moomee la ña fa nekk waa géejawaay la xam nañ bu baax am nañ conscience ci li fi xew xam nañ aussi nañu di xaar si ñoom jàngalkat mooy Aliou Sall nga xam mooy suñu njëkk au niveau te nga xam daanaka amul suñu jot wala sax dafa xaw am complexe bu rabona yi suñ ko bàyyee ci ay loxoom day nax fay rek moo tax Guédiawaye gépp war a taxaw pour xeex ak président def mu jariñ waa Guédiawaye d'abord balaa mooy tombe ci loxo ñi xam ne lu ñu tuddee rek dañoo aay ci ay pexe pour lal ak lalli ay pexe nguur gi jënd décret boo xam ne daanaka daal dina yàq filaaw yu bëri kon nag euh, ce qui veut dire que ni nga xam ne moo di environnement bi dina gën a dégradé wu foofu waaw xam nga ni moom si wax da warte yàlla rek tax mais ku nekk xam na ni xam tey ji moom moo nekk Géejawaay ñu koy tuddee filao ni ko woon filao filao yi fi nekkoon entre mille neuf cent quarante huit mille neuf cent cinquante mais dañoo am durée de vie te ku ne xam ne filao yi fi nekkoon mille neuf cent cinquante ba tey deux mille vingt filao yi dee nañ bu yàgg li bëgg filao ko ci laa bokk te gëm ni filao dañu ko Ngaraf euh, mbay doon bàyyi le kàddu ci micro euh, Moussa Thiam lu ëpp juróomi téeméer ci ay jugement maanaam soxal ay kayitu juddu te màgget lool la ñu nemmeeku ci tribunaux yi nekk ci diwaanu Ndakaaru bokk na nag ca la ko jur ay kayit yoo xam ne dañoo yàqu wala fañ na denc tax na ba mënatuñ leen gis looloo tax ba kii di ab consultant formateur en état civil di Abdoulaye Soumaré di proposer man lu ñu duppee informatisation de l'état civil ñu teewlu ay kàddoom ci micro Moussa Thiam. su ngeen bëggee daal population yi noppal vraiment parce que problème état civil ndax man bu la nee activement rek man dama naan état civil parce que des milliers pour des milliers de gens yoo xam ni amuloo état civil chaque jour ñu ngi dem si tribunal jël foofu jugement jugement yi li ko indi mooy te ak dafay dafa yàqu da ko yàq ak yow dootul exister juridiquement alors je crois bien que l' état a pris par les cornes monsieur de République a instruit je crois le ministre de la décentralisation yéen ko ñuy wax monsieur Sall directeur de sa civil et avec un je crois boo xam ne menacé maintenant ñoom ñu ngi defaraat archives yi parce que boo leen defaraat archive moom mooy informatiser il faut ñu informatiser sens état civil bi parce que loolu loolu moo mën e système bi mhm. waaw que boo nee boo man immédiatement état civil moom moom la mhm. parce que bés bu say bés bu sa acte yi yàqoo jeexal nga bu ëppal yaa ngi ñun ñi qui sont qui sont dans ce cas là à cause problème archivage waaw il faut ñu je crois bien l'outil numérique moo ko mën ay moom ay jamono maire yu bëri lakkoon nañ leen fii ak yu mel noonu. est ce que jàpp nga ni euh, li nga xam ni moo di daal euh, lii di informatisation état civil yi euh, daje na fépp ci Sénégal. non non daje bu parce que léegi je crois bien que su ma juumul une centaine. lañu informatisé. Ah, mais def na parce qu'il y a 602 communes qui sont la troisième phase. Ah, mais mais je crois bien que le docteur Sall est entré du métier sur l'investition du président de, de, de la République et, et financement, n'est-ce pas, du, de l'Union européenne. Je crois que dans le Bouna Asseline Dal, je vous rappelle que d'ici quelques temps, du moins pour de l'état civil, moom daanu mën solutionner à ce par le suivi numérique, c'est-à-dire l'informatisation. ci lu soxal yëngu-yëngal yi nga xam ne amoon na ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru cour di centre des œuvres universitaires de Dakar mu ngi koy nakarlu di ñaawlu nag yàqu-yàqu yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ca université ca restaurant yi nekk université ak it jumtukaay yu bëri yoo xam ne ñoo fa nekk nee na nag ñi jëfee jëf yu ñaaw jooje euh, doon dina dal seen kaw direction bu cour nag di yëgle ne àndul benn yoon ci li nga xam ne jot na am te yoonam nekkul ci mbirum élection ba ñuy amal jëf yu ni mel ñu teewlu kàddu yi Khalifa Diagne di général adjoint bu COUD ci micro ay Aïssatou Gueye Ba. bi loolu amee aussi ñun waa COUD ñu ne ñun ñoo njaboote étudiants yi mais ñun aussi ñun ñooy responsable lii xew fii ci COUD. Euh, donte li ñu def dañuy yàqal étudiant moo tax directeur màgget seen waxoon euh, département am yépp ak service am yi nga xam ne ñoom mbir mi laal na seeni domaine ñu dem def xayma bi xool. ñu xool aussi. yàqu-yàqu yi pour xool lan la ñuy def ci ñooñu ñu ñaax rawatina unité de sécurité bi moom dañ ko laaj ñu wax ñu ou bien ñu jéem ñu seetal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def loolu bu ñu demee ba xàmmee leen ba gis leen ba amuñu ci benn laam-laame ñun dinañ jébbal ñaari kalaame kalaame bu njëkk bi dañ koy def ci wàllu yoon kalaame bi ci topp dinañ ko def ci wàllu ñi leen di jàngal parce que foofu la commission discipline université bi nekk yàggul dara ñun waxtaanoon nañu ak ñoom ba am ak ñoom benn xam ne bu am ndongo étudiant defee dara fii ci cité universitaire bi naka su dul noonu ñun war nañu mën a def benn rapport ne kii kat def na njombe ci cité universitaire bi pour ñu travi traduire ko conseil de discipline bi nga xam ne mën na dem sax ba ñu dàq ko ci université bi yooyu nekk na loo xam ne ñun mënuñu woon ko ñàkk a bañ a def ndaxte ay la yëwén ñu nangu fii ci cité universitaire bi étudiants yi jàppee ni ñoom bërëb la boo xam ne mën nañ fi def lépp lu leen yàq fii bépp yàq bu leen neex te dara du leen ci fekk loolu amul benn ci amul ci benn réew bu organisé te ñun ñi jiite université bi fas yéene wuñ ko nangu étudiants yi lépp lu ñu def rek loo xam ne yàqu-yàqu la ñu teg ko kudd wala ñu teg ko seeni ñoñ ñun dinañ def la ca war dinañ jël suñuy matuwaay ba loolu du fi amati ëllëg li tax suñu xel dem ci ne sabotage am na ci mooy directeur Maguette seen bi mu ñëwee ba léegi dafay def ay effort yu baree baree baree bari pour étudiants yi seen nekkin seen dëkkin ak seen dundin gën a ñoŋ ba tey ci lu soxal yëngu-yëngal yi amoon ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñaari coalition yi nga xam ne ñoo di L118 ak article L119 ñoom ku nekk ci ñoom mu ngi daas fanaanal ndax ku ci nekk dafa jàpp ne euh, dañ ko daal di tooñ ba tax nag ne ñu dañoo taxaw temm ngir daal ñu du jox leen dëgg tey la doon amal ndajeeg taskatu xibaar yi Aïssatou Gueye Ba. bu moyul daañu nemmeeku waat fële ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru ay xët-xët li ko andi nag bokk na ci résultat yooyee ñu daal di génnee jëm ci wàllum nag nag renouvellement élection amicale yi renaissance faculté des droits moom nag ne résultat yi ni mel nag dalul xelam. man personnellement sama vote jëluñu ko en compte parce que nee nañu zéro zéro votant euh, ñu d'accord loolu. ca noonee lan rek du bàyyi mu sedd Aris Lafon étudiant la master 2 foofee ca faculté de droit. non du ma sa sedd du ma du ma sa sedd parce que état bi xam nañu lu mu bëgg lu mu bëgg mooy maanaam non seulement dafa mu dugal ay réformes bëgg a ak yelleef étudiants yi moom ñoom ñoo yor li étudiants yi maanaam nekkee si jàmm moo ñu yor leneen loolu loolu moom itam na yi njëkk yi bañ ko génnee moom moo daal di. gagné Marcel Diedhiou mooy coordonnateur coalition bi ni mel. organiser élection campuseen ñoo koy def ñooñu ñooñu déclaré vainqueur donc moo tax ñun ñuy fête suñu victoire léegi bu ñu toogee ba si ëllëg si dara xewul nit ñi di di di exercer ay actes de violence administration bi ñëw. au lieu ñu euh, sanctionné ñooñu def ñu ñëw di annuler di annuler ay élections loolu dama jàpp ne gàcci gàcci ko rëy. du yoon loolu ñoo ngi koy ñaawlu. ca noonu itam la moom mi daal di xamle ne du bàyyi mu sedd. plan d'action pour le moment mooy dañuy porter plainte dañuy defaale tamit recours pour au moins ki euh, annuler annuler acte bu mel noonu. xët-xët yi ñu fi jot a nemmeeku nag ak restaurant yi ñu daal di saccagé foofee ca biir université Cheikh Anta bu Ndakaaru coalition Renaissance faculté des droits moom nag ne yoonam nekku ci te defu ko lu ci mënta am nag ñaari parti yi ku nekk mu ngi xëccoo di buum di buum mi te ñoom ñaar ñëpp kenn dàqu ci def li war ngir mën a gañe yooyu le élection Aïssatou géy Ba ci lu soxal aji màkk ju atum 2021 délégation générale pèlerinage ah, mu ngi dànkaafu agence privée yi di leen wax nag ne waruñu bind kenn te waruñu jël xaalisu kenn fekk amuñu xibaar bi nga xam ne moo gën a wër ci lu soxal lu ni mel ah, loolee nag agence yu bari ñu ngi koy toppandi waaye terewul ñu gëm ne ah, bu wëyee te coppite amu ci ñoom dinañ ko yëg bu baax ndax dinañ ko yëg ci wàllu koom te dinañ ci ñàkk lu bëri Abdoulaye Diop. ba tey dara leeragul ci junni junni jullitu Sénégal yi bëgg a seen juróomeelu ñaareelu ponk l'islam délégation générale bi sant agence privée yi ñu bañ a jël benn po inscription loolee nag nangu nañu ko ci agence bi di yoonu màkk Cheikh Bamba Dioum la délégation générale ne nañu arrêté euh, les nag ñun li ñuy def mënuñu ku ñu woo ñu ne la xamuñu la loolu xam nga du xel mënul nekk ku fiy woote boo ma nee man de bëgg naa dem màkk damay indi sa xaalis dama naan la téel sa xaalis loolu nag kenn sañu ko fee bañ saa yoo si amee lu leer ma wax du ma jël sa dërëm nag bi lépp population bi su fekkee rek antuwul suñu sukkandikoo ci Goumba Gaye bu agence bu Harameyni Chérifayni. ah kooku kay gàllankoor bu bu bu bëree bu bëri ba sax heure bi daal na fekk ñëpp pare heure bi daal na fekk ay problème bi daal la ñuy nekk wala leneen mais heure bi yow dama ko bàkku tegoo dara dafa ko dara moom dana lay war moom pour orga même bu at bi ubbiwul sax pour organiser ko ce sera très difficile dana métti lool waaw dana lay war moom. ñaari at yu tegaloo te aj narta am ay gàllankoor yu metti la nar jul ci agence yi. organisation ak gi moom lajj na organisation ak gi ci Sénégal lajj na organisation ak ci àdduna bi lajj na bu aj amul lu toll ni un pilier de l'islam nga ne pilier boobu kenn du ko doxal ren ko échec mënu koo weesu ci diine islam bu boobaa ñi ko yoree fii Sénégal échoué nañu ña ko yoree feneen échoué nañu lépp benn weer ci ajub màkka gi ña ca yëngu ñu woo ñu bañ a rek dugg ci ay njuuj njaaj jëm ci ay bind ay ujaaj ci wàllu tàggat yaram ak ñaar fukkeelu édition ak ñeent bu soxal Coupe d'Afrique des Nations euh, dama équipe vice championne bi Sénégal door na tey ji ab jongante ba tax nag mu wone ci boppam dooree Madagascar lu toll ci ñeent fukki poñ ak ñaar euh, ci diggante euh, fukki poñ ak juróom-benn ci waajtaayu Coupe du monde beach soccer équipe nationale door na dina door ab stage juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak ñaar ci weeru juin ca géeju jàmmalaay ca boobile stage nag sélectionneur bi di Ngalla Sylla woon na ci lu toll ci ñaar fukki joueur coupe du monde de soccer nag dina am fukki fan ak juróom-ñeent ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août ci atum 2021 ca Russie ci lu soxal euro 2021 ci li nga xam ne moo soxal poule A ak poule B nekk ci ñaari équipe yi di Italie ak Belgique daanaka ñoom am nañu chance te mën nañu jongante baraw gàddu gi bu ñu sukkandikoo ci Assane Sène di journaliste sportif ca l'Observateur ci jokkoom ak Josette Kali poule A defe naa ne mooy euh, bon moom ak poule bi sax ñooy ñaari poule yi nga xam ne ñoo gën a neex ñoo gën a neex a jàngat parce que wax dëgg yàlla euh, Italie euh, seen équipe bu bees bu ñu am ak taxawaay bi ñu nekkee jamono yi ragal naa ne ñoo ñoo ñoo xaw a ëpp doole ci ci poule bi donc Italie normalement dinañu dem largement favori mais leneen li ma leen mën a xamal mooy suisse si ñoom saa yu ñu leen mosul tudd parce que non amuñu ay tur yoo xam ne comme ni ñu koy wax ay tur yu ronflant xam ne bu ñu waxee tur bi rek ngeen hop kooku joueur bu mag la mais toujours am nañu équipe et yi seen participation yëpp vraiment ay participation yu jaar yoon la ñuy def donc euh, ci poule boobu daal gëm naa ne euh, Italie ak euh, ak Suisse moom. largement ñoo ñoo xaw a këf euh, Turquie ak euh, ak Pays de Galles parce que bon Pays de Galles ni ngeen ko gisee ki dem contre France Gareth Bale bi ñu yaakaar ma dafa mel ni football euh, bokkatul ci ay mbiram donc en premier match comme Italie mooy dalal Turquie dina am départ bu baax donc forcement dina am taxawaay taxawaay bu baax te xam ngeen bon euro bi moom poule yi qualification yi yaatu na da ngeen di dem ba ñaar génn meilleur troisième union donc ku nekk war a bokk mais ci poule boobu daal jàpp leen ne Italie ak Suisse daal normalement ñoo leen di xaw a euh, jiitu suñ demee ci poule B bi ñu wax ci diggante Belgique Dan Danemark Finlande ak Russie réeréwu leen mbir ni Belgique mooy euh, numéro un mondial depuis ay années depuis 2018 Belgique ñu ngi leen di xaar même un peu avant parce que toujours am nañu génération bu ñuy woowee génération doore ñu war a mun a gagné ñëpp. donte sax fi mu nekk nii Eden Hazard xamaguñu ci yan tànk la nekk ndax yàgg gaañu joué wul lu bëri mais Lukaku fi mu nekk boot na équipe bi ba Belgique moom ci foofu normalement euh, haut la main dinañu jiitu seen poule Danois yi tamit euh, am nañu équipe bu baax euh, foo leen xaar ñu ñëw foo leen xaarul sax ñu ñëw du ngeen fàtte ne Dan Danemark dem na fi vacances ñu rattrapé leen ñu gagné ñu gagné euro donc ñooñu il faut faudra compter ak ak ñoom. donc gëm naa ne daal ci pour boobu aussi carte gi carte gi leer na Belgique dina dina jàll tranquille te su jàllee normalement Danemark Danemark dina ko dina ko gunge parce que ci seen seen première sortie su fekkee ne euh, euh, Belgique logiquement dina teel a jël position su jëlee position ala kulli àll Danemark lay lay yóbbuwaale ñu ñu ànd. que Belgique-Russie, il n'y a normalement, il n'y a pas trop photo. Et euh, Danemark-Finlande aussi. Finlande yi nag euh, bettoon nañ fi nit ñi ci euro 2016 euh, bi andi fi benn affaire boo xam ne xaw na jaaxal ñu mais je pense que delluwaat nañ dans les rangs et que donc ci poule boobu comme ni ma ko yaakaaree daal euh, Belgique en tête et puis Danemark nekk outsider après nga ñuy xool ban meilleur troisième moo fay génn mais pour diriger poule bi ñaar ñooñu lay mun a doon ci. première euh, poule yi ñuy waxante muy poule yu neex a analyser en analyser en attendant ñuy dem nag ci groupe de la mort yi